pour revenir à Ousmane Sonko c'est clair que Ousmane Sonko dafa incarne benn idéal au niveau de la jeunesse que lu ñu gis doy ñu dañu bëgg a dem ci benn ère de changement tout le monde l'espère bon mais la difficulté de Ousmane ce qui va venir je crois c'est c'est pas un problème nga jële système teg beneen système c'est impossible du point de vue politique c'est impossible tu peux pas détruire un système même soo jëlee les pays de l'Est ñi nga xam ne dañu def révolution dëggantaan wala nga jël France def révolution dëggantaan tey jii boo demoon France les problèmes de constitution <laughs> ñu ngi foofu ba léegi soo jëloon France immigré mais immigré ñoo tabax France mhm. soo jëloon retraite c'est des immigrés qui ont construit la France. Donc les problèmes du système capitaliste sont sont mondiaux te gisuma fan la Sénégal mën a jaar ba bañ a nekk dans un système capitaliste mondialisé c'est pas possible donc le système capitaliste mondial Ousmane ko mënu ci dara là c'est un piège qui est, qui est, qui est devant lui parce que du ko mën a changer bon ça ne changera pas peut-être d'ici vingt ans trente donc il y problème peut-être de communication euh, au niveau du PASTEF c'est que euh, nu ñuy waxee change système je prends l'exemple de l'Assemblée bon Bira Birama wax na ko sànq depuis 60 ba 2012 c'est le même système parlementaire mais di dox di dox bu benn jour Sénégalais yi yeew ne bon yéen seen majorité mécanique bi fii la yem mais Sénégalais ñoo voté pour que système bi change Il n'y a pas de majorité du pouvoir, il n'y a pas de majorité de, de l'opposition. Ça, c'est les Sénégalais, c'est cette maturité politique-là. C'est elle qui change. Le vote peut changer. Ousmane Sonko, il faut bien qu'il fasse attention que Manlène Fall 2024, mais le véritable changement, c'est au niveau des électeurs. Ce n'est pas au niveau de la jeunesse. C'est toute la société qui doit accepter le changement. Du, du changer je prends l'exemple éducation bi ñuy joytu ñun ñëpp même soo jëloon na Sonko nga def ko ci pouvoir mais les jeunes la mënuñu changer système universitaire bi parce que amuñ kattan boobu amuñu mission boobu sax amuñ xalaat boobu bon soo jëloon économie c'est encore beaucoup plus compliqué xale yi amuñu entreprise amuñu xaalis amuñu débouché c'est pas eux qui changent l'économie c'est les opérateurs privés qui change une économie même même notre état soo jëlee Macky Sall am na une volonté PSE par exemple bi muy coow depuis dix ans mais boo dégloo les opérateurs privés sénégalais mais c'est que bokkuñu sax ci plan Sénégal émergent bi mhm. c'est c'est les premiers ki se lamentent du du PSE parce que euh, changement dafa xaw a compliqué pour man Euh, c'est vrai que Ousmane c'est l'idole c'est le le, le le leader mooy incarner le changement l'espoir mais c'est pas parce que tu es anti-système que tu vas changer le système au contraire système bi mën na la jël ci biir